wàccaayu laylatul xadar ñoo koy amal ngir fàttalente ak jullit yi ci seen dund lu jëm ci xam-xam ñu amale jataay bi fii ci kër soxna Maymunatu Mbàkke bint Cheikhul Xadim nu àndandoo ak ñoom nag di leen nuyu nuyoob lislaam di jiital ci nuyoo boobu jëwriñu yoonu murit di cheikh Mouhamadul Mountakha ibnu cheikh Mouhamadul Bachir ñu ñaan sun boroom gën ko fee yàggal te gën a doole ak wéram di nuyu mbooleem njabootu sëriñ Tuubaa gépp di fab nuyoo boobu di ko teg ci loxol jëwriñu kër gi ñu nekk di sëriñ Mouhamadul Mahfous mu feggoo ak njabootam sëriñ Cheikh Abdoul Ahad Gaynde Fatma nekk ci bopp bi ñu tegal ñu ko ci mbooleem buntu këri sëriñ tubaa yëpp ak taalibe sëriñ tubaa yëpp waaye nuy nuyu mbooleem buntu këri lislaam yi ak fu ñu mën a ne di nuyu mbooleem ëtti daara yi di fas yéene ànd ak yéen ci jataay bi nga xam ne dañ ko seq ak sunu sëriñ di sëriñ Abdul Xaadir Bousso moom alxaaji Seex bu Bousso moom bàyyi sëriñ bu Bousso Ilimaan mu bokk ci ndaw yi nga xam ne ni ngi dundal xam-xam te di ko taxawee ci jumaa ju mag ji waaye ak ci ëtt yi nga xam ne mooy ëtti daara yi ñu fas yéene seq ak moom rek ci ay laaj ak ay tont tomb bi nga xam ne nag moom lañ bëgg a waxtaane mbokk yu bari danañ gis ne danañ waxtaane lu jëm ci wàllu faggu lu lew faggu lu lew waaye buñ koy waxtaane ñaare rek dañuy jàpp ne safaan ba mooy jëm ci lu xaraam waaye ndakate nit ki mën nay faggu lu araam te du xam ne mi ngi faggu lu araam moo tax tomb bi mu ngi jëm ci faggu lu araam loolu nag incha allahu rabbi moom lañ fas yenee ànd ak moom eh, sëriñ Abdul xadir bi ginnaaw bu ñu la nuyoo nuyu sunu sëriñ sëriñ naa Mbacké mu sëriñ Modou Habib mi nga xam ne moo jiite commission bi ak ñi ko seqal ñëpp bëggoon nañoo xam rek nit ki buy faggu alal am na fàggu woo xam ne lislaam da ko sant jullit bi muy fàggu lu lew waaye am na ñoo xam ne lañuy ñuy fàggu day doon lu araam te wax nañ ne bu jëf ju alal ju araam duggee ci biiru yaram dana tàyyelloo cër yi ngir mu mën a jaamu yàlla ñu bëggoon a xam nag fàggu lu araam mooy lan. ok jërëjëf bismillahi rahmaani rahim salaatu wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Sëriñ Fàllu ñu lay delloo nuyoo. di soof suñu kàddu fii say kàddu daanoo di jël suñuy nuyoog suñuy ndokkeel ak suñuy ziyaar di ko booleek say yos di ko jébbal suñu mbokk yi ñu mbokkal jotaay bi mu tuddee suñu seexu naa xëy na dana yóbbaale ñu bari waaye ak kilifa gi nga xam ne moo fi teewal kilifa yi di Cheikh Abdou Lahad Gaynde Fatma di nuyu ñi ñuy teewlu ñëpp ak fu ñu mën di teewloo Euh, comme ni nga ko waxee sëriñ Fallou ñu bëree bëri danañ faral di waxtaanee ak di dégg di waxtaan it ci fàgg lu lew maanaam wut alal wutiin wu lew wutiin jaare ko ci yoon woo xam ne lislaam daganal na ko euh, waaye ñu ci bari seen xel du faral di jëm ci fàggalu araam wala boog wutin woo xam ne lislaam mayoo ko fàggu lu leew nag di lu am solo loo xam ne euh, sëriñ bi soññee na ci ba tàyyi ndax day ak jaam yàlla euh, di jihaat ci yoonu yàlla waaye safaan bi it di fàggu lu araam nekk lu doy waar lu mën a indi ay lor ci jullit bi waaye mën a it def impact bu mag a mag ci société bu ñu dund wala mbooloo mi sax yëpp boroom xam-xam ñu nag sonn ci lool yittewoo ko ci di ko leeral ak di jukki ay misaal yoo xam ne dafay wane fàgguteef lu daganut lu araam loolu lépp jubluwaay bañ cee am weesu dawali nit ki la ca mën a juddoo ndax comme ni nga ko junjee léegi dafay gàllankoor ci jaamu yàlla wàllu jaamu yàlla diggante nit ki ak boroomam waaye it dafay indi ak xëccoo ak ŋaayoo ñàkk déggoo ci société bi ndax ñaare fu mu amee rek ak tooñ da cay rax wala jaay doole wala noteel wala yu mel noonu moo tax borom xam-xam ba noppi it am yeneen jeexit yu muy indi sax ci diggante nit ki ak boromam tax bu ñaanee duñ ko nangu tax bu jaamoo yàlla duñ ko nangu ndax lay tax nit ki jege boromam mooy mu dunde lu lew te dunde lew nag li ko mën a may euh, jullit bi mooy fàgg lu mu wut alal wutin wu lan mooy fàgg gu araam fàggu rek baat bi kas bu buñ ko waxee dafay firi wut wut dara talab ibtiqa wut da ngay wut nag bu fekkente ne da nga koo jaare ci anam gu lislaam maye gu mu yoonal dañ naan fàggu nga lu lew moo xam da ngaa jaayante jënde ko jëndante charte yi matt lépp jaar ci transparence kóolute nga jaay loo moom ki lay ki kiy jënd jox la lu moom wala nga daan sa doole ñu fay la yëpp ay fàgguteef yu lew la yu baree baree bari la moo tax boroom xam-xam yi sax dañuy wax ne eh, fàggu lu araam moo mat di gëstu ndax moo gën a tuuti waaw daanaka boo xamee rek boo xamee exemple yi rek da ngay jàpp ne leneen lu dul moom rek dagan na te alxuraan it euh, méthode boobu la jëfandikoo waxat fassala lakum ma xarama rabbukum aleykum yàlla li araam ci yéen détaayel na lañ ko nga xam ne da xam ne lu génn lool rek dafa dafa dagan qul taalaw atlu ma xarama rabbukum aleykum kaay leen ma wax leen li yàlla araamal ci yéen moo tax Sëñ Tuubaa incha allah bu ñu nee bu ba ci biir waxtaan danañ gis ne ci euh, yoon woo la jaare moom ci jëmam bi mu koy xam xamle bi ñu bi muy xamle wut wutin wu daganut dafa wax ne mooy loo xam ne daf laa dikkal mayuñ la ko saraxuñ la ko jëndoo ko noonu la noonu la ko xamle maanaam yatika tan aw sadaqatan aw ishtira joxe ci ay misaal daal ne lu mel ne sàcc mooy jël loo moomul rek wala lu mel ne nangu alali jàmbur ci noteel la wax këf wala lu mel ne laaj tàllal sa loxo te fekk aajo ju far warula ko kon loolu mooy fàggu gu araam mooy daal fàgguñ woo xam ne dañ koo jaare ci anam goo xam ne lislaam dëgg na ko muy loo xam ne daf daf cay dugg lépp loo lekkal nit ki te amoo amoo amoo ci ak teeku bakkanam wala lépp loo lekkal nit ki jaar ko ci anamuk tooñ jaaroo ko ci anamuk dëgg li ñuy wax aklu amwaali naasi bil baatil te loolu suñu borom moo ko tere lekk alal yi nit ñi te euh, awoo ko ci yoon awoo ko ci fu lislaam maye yonent bi sallallahu alayhi dafa waxoon ne seen alal yeeg seen der yeeg seen bakkan yi dafa aram lu ci waaye di jël rek nag fekk mu jar ko ci mu jël ko ci dëgg loolu nag kon ku ko jalgati euh, règlement bi ku ko jalgati dañuy jàpp ne la nga fàggu fàggu la goo xam ne euh, dafa aram nekkul lu lislaam maye sëñ Fallou yaakaar naa xam ne bu gàtt daal buñ ko mënee jàpp ci wàll googu mën nañ ko jàpp mën nañ mën jàpp ne mooy loolu. day mel ne ci ñett tomb yi nga indi loo xam ne da nga koo wala loo xam ne da ëpp doole nit ki ci jëloo ko ci teeg bakkanam waaye am na am nga ci bu am ab sew-sew mooy boo xam ne da wax lu dul dëgg ba jot ci ci day mel na loolu lu yaatoo yaatu la. Mm-hmm. ñu bëggoon xam diggante soosu laaj na ab sew sa ndax am na koo xamante ne bii mën naa ñëw wax na ne soxla sàngam laa am te amul soxla soosu daa bëggoon a fexe ba jël sa alal ak yu demee noonu. Mm-hmm. waaw xam nga dañuy wax ne euh, lu leew ci wàllu fàggu ak lu leewut neex naa xam neex naa xàmmee loolu li leew léeg-léeg euh, day day day fekk li ngay liggéey ci jëmam jëm mi liggéey bi leew nga xam ne amul benn àq juñ la ci mën topp. yoon wi nga ko jaaree it ba man koo am lew safaan bi nag mooy lu araam lu araam léeg-léeg jëmm ji mooy araam lu mel ne mbaam xuux masalan jëmm ji jëmm ji moo araam lu mel ne sàngara jëmm ji moo araam ak yu ni mel lu mel ni medd jëmm ji moo araam kenn suñ cee jëflante léeg-léeg jëmm ji du araam waaye fi nga koy jaaree ba am ko mooy araam loolu nag daf cee dugg li nga wax léegi nii mooy lu njëkkoon a juñu daf cee dugg lu mel ni ger daf cee dugg lu mel ne not nit ki xay na boo ko notee la ngay jël ci moom moom jëmm ja boo ko xoolee nii loolu islaam daganaan la ñu jëflante ci waaye na nga jaar nag fa nga jaar ba ba jot ci nag loolu mooy li nga xam ne dafay nekk lu aram euh, suñu tubaa daf daan wax ne wa aklu maali naasi inda al ulama bi xayri tibi nafsi aydan xaruma lekk alal yi nit ñi te amuñ ci teegu bakkan dafa aram aram lekk alal yi nit ñi nag ci lu teegu bakkan mooy nga lekk ko ci neen ci lu dëgg loolu mooy ak lu amaali naasi bil baatil loolu nag dana amee ci nga jaare ko ci tooñ lu mel ne ci sàcc lu mel ne ci wor ak euh, këf wala yu mel noonu dana amee ci nga jaar ko ci anam goo xam ne kenn dëgganalu ko xëy na woor ak yooyu mën na caa bañ am waaye kenn du ko dëggal lu mel ne carte mm-hmm. maanaam fi nga ko jaare lislaam ci jëmmam moo bañ anam googu mm-hmm. mën naa deme noonu mm-hmm. euh, kon loolu mooy mooy mooy jëmmi fàggu lu lu araam ci anam yooyu la mën a amee mu nekk nag loo xam ne dafa araam dafa araam gi mooy même boo ko fàggoo ba yor koy moomoo ko moomoo maanaam àqee jàmbur nga yor àqee jàmbur nag nañ ko suñ tubaa jàngale woon moom leer na jëflante jëflante ci leer na mooy bu fekkente ne borom mi ngi dund da nga ko ko jox bu fekkente ne dundul nga delloo ko ñi koy ñi ko war a doon bu fekkente ne nekkuñu fa yow doo ko sañ a jëfandikoo waaye da nga koy sarxit yéene ko tiyaaba ja macha allah waaw <laughs> eh, jërëjëf eh, sëñ Abdou Khadir eh, loolu leer na naññi kon day mel ne bu ñu jógee ci tomb boobu nga xam ne mooy euh, fàggulu araam te indil nga ñi ci ay détails yoo am solo yoo xamante ni yaakaar naa ne nit ñi danañ ko bàyyi xel ngir nga mën a ñoŋal seen seen diine mën a itam ñoŋal seenu jaamu yàlla. mu mel ne sëriñ bi nag woote woon na moom ci fànn googu jëme ci nag ci sàkku lu araam lu lu alaal lu lew moom. Hmm. sëñ bi day mel ne woote woon na moom jëm ci sàkku lu lew tey moytu lu ala araam. Hmm. <laughs> waaw lool sax bu baax a baax a baax woote boo xam ne daf caa gatanu alxuraan rek daf ko caa gatanu gunge ko ca. Mhm. alxuraan moo ci njëkk woote. Mhm. xadiis bu siiw boobu yonente bi doon wax naan yéen nit ñi yàlla ku baax la ku teey la du nangu lu may lu baax lu teey lim digal yonente yi yit moom la leen digal rek lim digaloon yonente yi mooy yaa ay rasul kulu min at-tayyibaati wa amalu saaliha mhm. de leen lekk lu lew def lu baax waxaat nee na lool noonu lañ ko digalee yéen jullit ñëpp yaa ayyuhal lazina amanu kulu min tayyibaati ma razaqnaakum yonent bi daa nee na man ngaa gis koo xam ne fu mu toll day tukki boo ko gisee xar kanam gi soppiku jëmm ji soppiku fu mu toll it kooku dañuy dañuy dañuy jàpp ne lu mu wax yàlla rek yàlla nangu ko koo xam ne daal da nga fëndooñ soppiku ci ci ci yàgg tukki di wut lu baax dañu jàpp ne rek loo ñaan suñu borom mu may la ko bi ne fu mu toll mi ngi tàllal loxoom asamaan ñaan yaa rabbi yaa rabbi yaa rabbi waaye nag daa am fondement bu mu fàtte mooy daa dundee wut daa consommé wut lu lew moo tax yonent bi ne fekk la muy dundee dafa araam la muy naan dafa araam la muy sol dafa araam kooku bu bu doon ñaan fii ba àdduna tukki kenn du ko wuyu kon loolu dafa wane importance bu fàggu lu ak lekk lu lew am euh, beneen xadis yonent bi nañu nit ki ëllëg balaa séq benn jéego danañ ko laaj ak dundam ci lu ko jeexal xam-xamam nu lu ci jëf alalam fu mu ko fàggoo fu mu ko fàggoo ak fu ko dugal waaw yaramam it lu ci def bam bam màgget kon euh, alal ju leew la mën a indee ay ay ay ay njariñ waaye lu araam tamit loolu la mën a indee ay lor li nekk ci diggante bi nag mooy lu lënt lu lënt mooy lu leerut loo xam ne da ngay xool wet gi mu jox la lu leew nga xool wet gii mu jox la lu aram lii lépp nag tax na Sëñ Tuubaa moom daan woo taalibe yëpp jiitu ci moom jiitu ci sonn ci lu leew lool ci ni ko Sëñ Basiru nettalee ci minan ci ay yoon yoon yoon daawut addee lu mu daan bari bari bari bari lu araam moom daaw ko jëfandikoo daaw ko daaw nangu njaboot gi jëfandikoo ko ci kër gi da ko daan saraxe wala mu mu fexe ba mu génn ci ay loxoom rek kon moo njëkk a joxe ay misaal yu wax ci ay bayit yu bëree baree bëri daanaka baatub xel ak baatub xalaal yu mel noonu wa bil xalaal yi ak yu mel noonu boo koy xool ci xës yi day day bëri lool nga gis ne lim am li ko ko may bari na waaye daf caa bokk nag muy lu am solo muy dunde lu lew moo tax daf daan woote ci sàkk lu lew di wax ne moom lañu ñu war a moom la war a sonne di bàyyi lu araam waltar kanam wal tatrukan kullama ay xanta bi kaw niil xaraama aw dananta aw bayit la woo xam ne dafa wax ne lépp loo xam ne wóor na dafa araam wala nga njortu ko na nga ko bàyyi nga njortu ko mooy ak lënd am na ci laa tudxilil xaraama fi l batni wala maa fihi shubhatun balil xilla wila sa biir bu ci dugal mukk lu araam wala lu am lënt na ngay taqoog lu lew fakul xalaalan in aradta an tutia allaha wa rasula yaa hadal mutia lekkal lu lew bu fekkente da ngaa bëgg a topp yàlla ndax lekk lu lew googu moo lay dimbale ci nga man topp yàlla mooy nekk sa crédit mooy nekk sa sa carburant bi nga xam ne toujours moo la yëngal ci ak topp yàlla ndax dañ ko daan wax ñoom mag ñi lekkal lu la neex da nga da nga da nga def lu nuroog loola ànd la ku la neex da nga yor ay jukkoom waaw kon toujours dañuy wax ne nit ki boo bëggee xam rek euh, digganteem ak boroomam ci euh, consommation ci ni muy dunde xoola ay jëfam ay jëfam bu juunoo nga xam ne li muy dund li muy dundee mën naa siraat boo ay jëfam baaxee daanaka doo ko gis ci ab safaan da ngay xam ne kii li muy dunde leew na am na ndénkaan lam defoon jëmale ko ci murid yépp wasaytukum yaa man taallaqu biya yéen ñi aju ci man fi sirri wal jahri li wacci rabbiya ci lu feeñ ak ci lu ñi aju ci man te yàlla rek tax maa ngi leen di dénk an tatruku muharraman wa ma kurih ngeen bàyyi lépp lu araam ak luñ sib bàyyi leen ko rek te yàlla tax li wajhi rabbikum wa kulli mushtabih daan ne man alimal jamia fal yu faariqa ku ko mën a ràññale mën a xam ne lii lew na lii araam na lii lënt na ku ko mën a xam fal yu faariqa na xool la araam mu bàyyi ko mu wàcc ko la lënt mu wàcc ko wa man biha jahila fal yu raafiqa képp koo xam ne mënu koo ràññel nag na na ànd ak ku ko mën a ràññale mu koy mu koy wan loolu moo tax sayxu tarbiya am solo am sëriñ am guide am solo boo ko boo amul yooyu yëpp nag ngay laaj euh, wax na ko ba taay na ngeen wattandiku lu ngeen wóolu ne dafa araam wala ngeen njortu ko ak ay bayit yu baree bari bari yoo xam ne mën nañ koo kii noonu la feeñ ci fatawaa mi sax ci ubbee mu daan def ci buñ koy laaj muy tontu ci wilant yi tey masalan mën nañ cee misaal alhaaj ibrahim al baghdadi moomu cheikh moomu la ñu jóg na di nettali nga xam ne kenn la woon ci murtani yi ku jàmbaare woon am xam-xam nee bokk na ci nee na bokk na li tax mu jéblu ci Serigne tubaa bis dafa ànd ak Serigne Touba tukki ñu nekk ñu yenn ci ñuy kendal ci ron ak garab nee na alxaaj albaxdaadi mii euh, booba daf daan daf daan daf daan kii daal daf jëfandikoo waaw pon ak yu mel noonu nee na mu génnee jumtukaay bi dem bay jëfandikoo jël sotti ci loxo bi daal koy tàllal sëñ bi ne ko loo wax ci lii sëñ bi ne ko ah defar rek loo ciy laaj mu ne ko déet mënu ma koo ñàkk laaj ndax wuute gi da cee bari ndax booba borom xam dañoo wuute ci tux lool lan mooy ab atteem ndax yëlla yi dafa léeragutoon wuute gi da cee da cee bari lool nee na ko ñi am nañu koy daganal ñi am nañu koy araamal sëñ bi am na ci beneen barab fu muy waxee ne euh, wàllum tux dañ cee wuute ba taalif nañ ci lu ëpp fanweeri taalif kon wuute gu gu rëy la woon gu fi amoon ci jamono jooju sëñ ko ah ginnaaw dañ cee wuute wuute gu métti gi da ngay xam ne kon dafa lënt ci yow leerut waaw dafa lënt ndax waxoon nañ la lu lënt mooy loo xam ne xamoo ndax dagan na xamoo ndax araam na boo ko xoolee ci wet mu nuru lu dagan boo ko xoolee ci wet mu nuru lu araam mu ne ko waaw dëgg la de dafa lënt de mu ne ko xanaa jàng woon laxdar yi laxdar yi waxoon na la de mu ne ko waaw jàng na ko a borom xam-xam la mu ne ko wax xanaa laxdar yi ca njëlbeen nga waxutoon ne dëgganut ci am mukallaf muy jëf jénn jëf lu may def caa xam àtte bi yàlla te ginnaaw lii lënt na ko ci àtte xamu ko ci àtte nee na euh, alaaj ibrahim daal di taxaw daal di sëngeem lu yàgg fi mu kiyee wax ji da àgg ko fu sore sori daal tontu bi ni mu gàtteeg ni mu teeraateere àgg ko fu sore sori taw ci borom xam-xam bu toll ne moom nee na mu sëgg ab diir ba kiye kiyee daal naa ci yàlla ne bàyyi naa ko bis ni ki tey daal di jóg gas ba mu xóot mu suul lim naroon a jëfandikoo nee na ca bis ba suñ moom lim jóobu dagan mooy xam ne ca bis ba ca bëccëg ba wala ca ginnaaw ba la jeblu ci Sëriñ Tuubaa kon mi ngoog ay ak fatwa ubbee yi mu def ci wàllu mm, tux yëpp ci wàllu googu la jëm kon daal gis nañ ne sonni woon na ci lool ci kasbul xalaal ñuy fàggu lu lew waaye sonni woon na yitti woon woon na lool it ñu xàmmee lu araam di ko wattandiku waaye ñu xàmmee loo xam ne leerul ci suñu bopp loo xam ne wuute da caa bari ñu koy wattandiku comme ni ñuy wattandiku lu araam ndax li yonent di sallallahu alayhi wasallam waxoon ne yi boo ci nuuree mën na laa yóbbu ci lu araam wallaahi mi ngi mel ne rek koo xam ne dangaa ñëw ci ab tool boo xam ne mm-hmm. xëy na sag ràññee kiiwut boo kiiwee mën ngaa mën ngaa mën ngaa dugg ci mm-hmm. mën ngaa ruur mën ngaa def loo xam ne santuñ la ko wala dafa dañ dañ la koy tere macha allah eh, jërëjëf eh, Cheikh Abdoul Khadir eh, am na solo lool te itam leer na ci noppi ñi nga xam ne ñoo ñi ñoo ngi koy dégg waaye war naa leer tam ci seeni xel ak seeni xol gis ne sëriñ bi am njàngaleem daawu ci sonn daawut guddit nag ndax boo doon xool ci suñ mbokkum naar mu nga xam ne boroom xam-xam bu mag la ndax sëriñ bi moom ñi ko masaa di topp rek ay borom xam-xam lañ te booba nag bu ñuy wax boroom xam-xam dëgg murtañi lay dëkk mm. daanaka ñi rawoon ci réew àdduna bi foofu lañ dëkk am ay cër ci yàlla waaye gis nga ndakate moom mi ngi jëfandikoo am lënt te xamutoon ni mi ngi koy jëfandikoo mm-hmm. kon day mel ne delluwaat ci li sëñ bi doon xam fa kullu man xalla bi iktifaa ay na ko ci tontul sëñ bi lu gàtt loolu mm-hmm. mooy yow kat ginnaaw lii lënt am na ci borom xam-xam yi wax nañ léegi ñee wax nañ léegi te mënoo àtte andi dëgg bi yow foofu kumpa am na ci yow kon daa jaadu nga bàyyi ko mm-hmm. macha allah ci leeral gu am solo googu la jaajëfal mu mel ne ginnaaw yàlla dogal na moom fagguloo araam andil nga ko nit ki mën naa jóg di fàggu ji te fànnin wi muy fàggoo sun borom def ko tere lu mu ci mën a ame nag day araam moom lu mu mën a amee ci loolu kon day araam ndax wutiin wa moo koy waral te lu araam néewaa na nit ki di ko dunde di sawar di jaamu jëm ci yàlla kon loolu leer na li nga ci indi bi ci topp mooy sëriñ bi woote gi mu woote jëmee ko ci sàkku lu lew nag moom nga xam ne loolu ci la yar ak njabootam mm. ba Euh, génn ci méthode méthode sàkku lu lew mm. yaakaar naa ne loolu il faut nga ñëwaat ci ndax mm. sëriñ bi bi mu wootee ne kaay leen sàkku ju lew it ba noppi dafa génn stratégie boo xam ne mm. nit ki bu ci jaaree dana mën a am lu lew dana te itam dana ko mën a defal fu dugal fu neex yàlla jërëjëf Cheikh Mamadou Fadal comme ni nga ko waxee rek fàggu lu lew moom moo war a am moo war a am mu am euh, importance bu mag a mag nag ci lislaam suñ borom wootee na ci wan ne ne suuf si moo ñu ko tàggatal war nañ moo ñu tàggatal géej moo ñu tàggatal nangam ak nangam garab yeeg bay mayeeg yëpp ngir lan ngir ñu jëfandikoo ko nañ koy mën a jëfandikoo nag mooy ñu ne dañ koy tàggataat dañu xool dañ koy dañ koy yéwénal dañ koy defar ba cee faj suñu yitte sëriñ bi euh, am solo gu euh, fàggulu lay am solo ci moom mën naa feeñ ci ay barab yu bari bi ci jiitu mooy daf koo jàppee ak ak ak farata farata lu munta ñàkk ci nit ndax lan ni mu ko waxee woon fàggulu la farata la ci bépp jullit bi xayri waxe bi ndax lan lu ji rek mooy laa yan fawoon ilma wala al ibada bil akli lil xaraami inda saada fàggu gi ngay fàggu lu leew mën a may nga dunde lu te dunde leew gi mooy jaamu yàlla gi moo la ciy dimbale waaw te dañuy wax ci borom xam-xam dañuy wax ne lépp loo xam ne daf lay dimbale ci santaane bu yàlla santaane wala yonente bi wala santaane diine lépp lu la cee dimbale te muy lu war la nga jëm di lu war kon jumtukaay ba ngay jëfandikoo ba àgg loolu la loolu dafa nekk lu war moo tax ñoom ñuy gis ne nit ki li mu mënta ñàkk daal ci boppam nga xam ne bu ko amul du dund bu ko amul du dundal ak njabootam loola fàggu ko dafa war waaw lu lu weesu loola nag moom mën naa mën nañ koo sopp mën naa am yeneen atte ñaareel bi mooy feeñ na ci ne dafa jàppe fàggu ak jaamu yàlla mën naa nekk ak jaamu yàlla mën naa am darajay jihaad mën naa am darajay kuy julli ni ki julli ni ki woor ni ki nangam ak nangam ci kañ ci bu fekkente ne ki ciy dugg dugg nañ ci am ci yéene ju rafet yéene ju rafet ji nag weesuwut mooy fës yéene ci garde ji dignitéem moom ci boppam moom ci boppam waaye it man cee yor ak njabootam waaye dimbali ci ay mbokki jullitam bu fekkente ne yéene jooju la àndal sellal jooju la àndal ba noppi liggéey bi mu koy jox waxtu mat sëkk ànd ceeg pëstéef bu mat sëkk lu mu amit dugal ko ci yoonu yàlla kooku dañuy jàpp ne dafay jihaad dañuy jàpp ne dafay jaamu yàlla loolu li koy tegtale ci mbindum sëñ bi bari na bokk na ci ci masaalikul jinaan ba muy lim ay mbir yoo xam ne mën nañ cee dundale waxtu lim na ci yu baree bari naafile yi gannaaw bu say farta jàllee lu mel ne koor koor yi ngàtt nga yeeg julli yeeg wérdu yeeg saraxe dimbale ko mënut yooyu yëpp dañ koy dañ koy dundale waxtu mooy dañ koy jaamoo yàlla waaye bayit wa ca mujj daf caa teg wala iktisaabi abadan bil amal ak di fàggu nag dëkke fàggu dëkke fàggu bi niyatil xayri waaye nag boo koy booy fàggu it nga yéene ci lu baax mooy li ma waxoon léegi rek fas yéene cee euh, reggal sa sa yaram fas yéene cee yor sa njaboot fas yéene cee dimbale say mbokk jullit waaye fas yéene cee taxawal projet l'islam yi am yëpp mm-hmm. nee na ku koy def moom it jàppal ne yaa ngi dundal sa waxtu yaa ngi dundal sa waxtu mooy rek jàppal ne yaa ngi jaamu yàlla noonu la ko waxee woon ci biir masaalik it bi mu wax atte yi nekk ci biir àdduna nga ciy jariñoog di ko jëfandikoo bu fekkente dañ cey jublu ndàmm ak nangam ak nangam bu boobaa musiba la lay andil bu fekkente dañ cey jublu ëppalante bu boobaa tamit musiba la lay andil waaye bu fekkente danga cey jublu am lu la doy sëkk ba mucc ci nit ñi ak seeni seeni seeni seeni seeni euh, seenu naay ak seenu foñ yooyu nit ñi mucc ci yow ba kenn du la jëppi yooyu yëpp bu dajee xamal ne ak jaamu yàlla waaw kon daal fàggu mën naa nekk ak jaamu yàlla kon ñetti mbir ngoog yoo xam ne dafay wane euh, ba dafay wane importance boo xam ne fàggu am na ko ci mbindum sëriñ bi mooy jàppe na ko farata jàppe na ko ak jaamu yàlla jàppe na ko lu ñu mën a na la waxtu waaye it yare na ci yarin wu wu yéeme sax waaw xam nga euh, loolu ngay dégg ci mag ñi ci ci atelier yi amoon njaareem ak euh, waa kër Sëñ Babacar Ndiaye Cargaan ñoom yabaloon ndakaar rek ak it nag euh, murid yi nga xam ne daf leen daan yar mag ñu baax ñi nga xam ne daf leen daan yar tërbiyee leen bañ mat li ñu li li ñu doon mu sampal leen ay daara ba noppi nag di leen fuglu di leen bàyyi xel comme ni ko suñu suñ suñ suñ basiru di waxee maa taraqubi shadid di leen fuglu bu baax a baax a baax a baax di leen yónnee ay leetar yoo xam ne day jubbanti la ci jublu fàttali jaaj ji ñoom ñu toog fañ toog di liggéey li li li li lañuy la ñuy jëlee ci liggéey ba lépp ñu ko jël di ko indiwaat ci sëñ bi sëñ bi di ko boole ngir di di ci taxawal lislaam di ci tabax projet yi di ci dimbale waaye ñàkk yi di ci di ci di ci di ci di ci sumb ay sumb yoo xam ne dafay symboliser yi nga xam ne moom la moom la dina jilaaj yëpp dafay wane fàgguteef euh, fàggulu leew ni mu amee ni mu amee solo ci murid gi nga ñëw nag mu am ay jeexit yu bare bare bare yoo xam ne moom kenn mënut a xam mënut a xam. macha allah hmm. euh, jërëjëf sëñ Abdou Khadir jërëjëf itam mbokk yi nga xam ne yéen ngi ñuy topp ci seen télévision yi ànd ak ñun ci jataay yi nga xam ne. commission culturel ak communication bu euh, laylatul xadara ci njiitul Serigne euh, na ak ñi mu ko seqal ñi ngi koy amal fii ci kër Soxna may Maymunatu Mbàkke bintu Seexul Xadim euh, tomb bu njëkk bi ñu dalal ci Serigne Jili Bousso ñuy waxtaanee lu jëm ci rek fàggalu araam ak fàggalu lu lew ak itam ni ko Serigne Touba jàngalee sëñ bi ñëw nga ci méthode bi nga xamante ni bii moom la ko sëñ bi wootee moom ak ni nga xam ne ni la ci tàggate ak njabootam. waaye day nag mil mbir boo ko taxawalee mu di procès boo ko boo ko réussiree du ñàkk mu jural la nag ay jeexital mu jural la eh, ndax euh, faggulu ni sëñ Tuubaa santaane woon sàkku lu leew tàggat ci njaboot gi taxawal ci ay procès mën nga ñoo tuddal benn benn ci jeexital yi nga xam ne jural na ko yoonu murit waaw bari na lool lool lool lool jeexit ji moom bari na foo ko takk rek wees na ko ci ni sëñ bi daan yaree ci fàggu comme ni ko sëñ Basiiru nettalee ci minan nee na bi mu ñëwee amatu naa si mooy mbooloo mi rek mbooloo mi nga xam ne fu ne jóge dañ daan indaale ay jukko yoo xam ne dëppuwut ak lislaam ay rëy ay bëgg àdduna ay nangam ak nangam nag bokk na ci méthode bi sañ bi jëloon mooy bu ñu xamee li ñu war a xam ci diine yi nga xam ne mënuñ ko ñàkk xam ci ni ñuy jullee ni ñuy wooree ni ñuy nangame li mu leen di def nag mooy fexe nag ñuy liggéey ñu dëkkee liggéey ñu dëkkee liggéey waaye nag ànd ci akuk digg doomu noonu la yit noonu la Sëriñ Basiiru di nettalee di nettalee ba naan ñoom ñëpp nag bu ñu demee ba tàmm ko bu ñu demee ba tàmm liggéey bi am am am am am am culture bi comme ci jël ba ber la it daf lay continuer di la di la di la fuglu di la bàyyi xel di la di la di la surveiller waaw déedéet loolu moom dafa mel ni booy xool sax nag euh, mini sëñ bi da xam ne yombut suñ bi libéral la moom bàyyi la noonu rek nga nekk sa bopp yombut ak nag darajo darajo joo mën a am ci moom ndax bu dul woon loolu leertar yi kon du ñëw ak dénkaan ñi lay dab seeg sas yeeg yooyu yëpp day wan ne kon am nga kilifa rek ba tey waaw sëñ Basiiru teg ci ne loolu tax na ba ku mës jóge ci daaraam boo demee fa nga ñi fa nga jóge woon danañ xam ne lu bëree baree bëri soppiku nga soppiku na ci yow loolu indi na mbooloo mu bëree baree bëri mujj ñëw di jéblu si kon yar nit ñi ci euh, liggéey ci tàmm coona ci ci ci ci ci bañ a ci bañ a tàyyeel ci ci jëfandikoo seen cër di jëfandikoo seeni xel di jëfandikoo ci seen xool ndax yooyu yëpp ay fo dafa am ay dafa ay ay fonction yoo xam ne moo moo ko tax a jóg loo ci bàyyi rek loo ci bàyyi rek day indi day indi ay jafe-jafe jeexit ji bari na mën nga koo xool ci wàllu mbay daanaka kenn rawu ci murid yi euh, man damay jàpp ne sax am na ay ay sabab yu baree baree baree bari mooy benn fi lañ ko fekk ndax euh, da ñu ngi nett li yaakaar naa ca nubzatul mubaaraka bi Cheikh lu Lamine jox Dagana def wan na ci ne bi daana ko def ci ak ndawam waaw taxutoon mu mën ko nag waaw daana daana ko defantu lu mu ci am jox ko addi Maam Mor Anta Sali waaye kon moom li ma ci bëgg a wax rek mooy kon mbécc la moo xam ne fi dañ ko fay fekk waaw ñaareel biit mooy bi mu wootee woote bi it li mu fi nekk yëpp mbécc moom lañ xamoon loolu li koy li koy tegtale mooy bi mu demee bay dem ci géej gi dafa bokkoon ci yim dénkoon maam no mooy yittewoo mbay mi yittewoo mbay mi ak yar njaboot gi ba mu demee ñu seqi ci ay jéego yu yu yu ama am yu ama am solo boo xoolee ci euh, daaree tërbiye yëpp da ngay gis ne seen sukkandikuwaay bi ëpp solo ci buñ daan sukkandiku mooy mbay mu am beneen sababu diine it mooy gis nañ téere yi fi jiitu woon dañ daan wax ne ba tey mag ñi sax dañ koy wax dañ jàpp ne lu ko gën a leew dañu seen ci seen gis-gis ñoom lu ko gën a leew amut waaw lu ko gën a lu ko gën a mën a defar nit tamit yombut ndax jël saw jiw lépp suul ci suuf di xaar di xaar yàlla loolu loolu lu yéeme la ci noonu ngay demee ci commerce bi ci noonu ngay demee ci wàllu industriel waaye nag ci noonu ngay demee ci wàllu dimbalante ci ci ci suñuy bëgg-bëgg ak suñuy naal yooyu yëpp li ñu ko may mooy nangoo liggéey ndax naal yi lu mu rëy rëy rëy bëgg-bëgg bi lu mu rëy rëy rëy bu fekkonte ne sonniwuñ ci ak fàggulu leew buñ luñ ci bëgg a daan rek mën nañu indil ay jafe-jafe yu mag a mag waaw. Eh, jërëjëf kon loolu leer nag waaye nag dafay mel ni ni mu ni ko sëriñ bi jàngalee yare ko ni taalif ci ay téere soññee ci eh, ba noppit gàcci gàcci murit yi nga xam ne seex bu mu mas a wàccee. lu mu am am dara daraja lu mu lu mu rëy rëy lu mu beru beru du tee ndawul sëñ baa ngi ñëw ci moom di ko gën a di soññiwaat mu mel ne tey jii la gën a ne ci daara ji ba ñoom fañ nekkoon buñ bëggee gis sax loo xam ne lënt am na ci day mel ne sëñ baa ngi toog seen kanam mm. léegi naka mook jeexitalu société boo xam ne la ëpp ci seen dund du lew lan la mën a yàq ci am réew. bari na li mën a yàq bari na lool ci jiitu rek mooy day fay jaxase aw askan. dafay jaxas dafa leen di jaxase dafay dafay dafay dafay séddale ci ñoom ay sentiment yoo xam ne ay stress ndax masalan euh, tey yow bu fekkoon ne da ngaa bokk ak koñ benn sàcc wala koo xam ne leer na day jëf yëf day jël yëfi jàmbur wala koo xam ne leer na boo jëflanteeg moom rek mu nax la da am ak moytu ak donte boo gisee doo ko doo ko wan kon machairul xawf wal da koy séddale da koy séddale ci nit ñi gis nga tey eh, suñu farlu boo gisee ñu bëree bëree bari kenn wóolatu sa moroom base bi dëgg-dëgg alal la waaw ci wàllu jëflante la juddoo woon waaw nit ñi lu lu bari bëri mën nañ la ko baal bam des nag eh, wuruj goo xam ne dafa juddoo ci wàllu alal kon dafay jaxase dafa jaxase aw askan dafay dafay indi tamit eh, ak nooy ak bëgg lu yomb nit bu tàmmuta liggéey day dem ba comme ni ko borom xam-xam yi waxee dañu naan nit dafa am ay force yu wuute dafa am force léeg-léeg mu mer loolu dafa dafa war a wut ay jukko yoo xam ne moo koy saafaraal saafaraal loolu yaram mi dafa am fonction fonction boo xam ne moom la ko yàlla bindee nga xam ne léeg day soxla lekk léeg-léeg mu soxla naan léeg mu soxla laneen xuwatu chehwaan yi da koy am loolu suñu borom daf koo wax daf koo jox ay tegtal yoo xam ne moom la ko moom la mën a faje soxlaam ak yeneen ak yeneen ak yeneen yooyu yëpp bu fekkente ne nit ñi nit defu ko liggéeyut fàgguwut daf loolu daf day tax mu laas day tax lañ ko doon doyee daal daanaka du ci mën dara kon de indi chômage dafay indi soxaar tamit ak iñaanante ndax foo toog rek yaakaar ni yow mënoo amoo da ngay da da ngay bëgg a fayantoog nit ñi pour ñoom ñoo la ko def pour ñoom ñoo la ko yóbbee fekk demeewul noonu dafay yàq tamit ab ab ab environnement ndax bari na ci loo xam ne buñ ko bàyyee laaluñ ko suñu loxo bu demee bu yàggee dafay naax saay bu fekkoon ne dëkk yi sañcuñ ko bu fekkonte ne euh, suuf si yéwee na nañ ko bu yàggee moo kër goo xam ne dañu faa dëkkoon ba mu yàgg mu taxu ñooy yem maanaam dara du duñ ko fa mën a réaliser dara du màgg dara du fa dara du fa baax euh, jërëjëf sëñ Jili xam naa liñ dese ci waxtu bariwut waaye bu mujj bi dama ko doon sakkanal daa mel ne nag réew mi lu ci ëpp léegi li ñuy wax naan baatub dóor ak santaas nit ci yàq ab deram ak yu demee noonu ok Sëñ Fallu euh, comme ni nga ko waxee dafa am loo xam ne léegi gan la ci réew mi xëy na nekkut nekku fi woon mbaax mhm. te ñi ngi am yaakaar ne it bu ñu yàlla dimbalee ñu dellu ci njàngaleem ku mel ne Sëriñ Tuubaa mhm. mën nañoo dem ba loolu ñu gane ji dana delluwaat fu mu dëkkoon mhm. yi ñu gane si nag bari na waaye def caa bokk euh, siiwal aw ñaawteef ak bëgg yàq der loolu suñu borom daf cee àddu woon ca sa soxna Aïcha ba ndax xam ngeen ne dafa bokk ci jubluwaay lislaam sàmmal nit ki ab deram ñoŋal ko jullit ñi di suturante kenn ku ci ne jàppee sa bopp ni sa moroom euh, suñ borom dafa waxoon ne inna alladina yuhibbuna an tashia al fahishatu fi alladina amanu lahum adabun alimun fi dunya wal axira ñi bëggal seen mbokki jullit ñi aw ñaawteef di ko siiwal ñooñu am nañ mbugal mu metti ci àdduna ak alaxira te buñ xamoon it duñ ko def euh, xis xaadisatul ifk muy xisab sayidina Aïcha bañ ko tuumaalee mm-hmm. ay jàngat yu baree bari suñ borom sax àgg na ci ba ba ba di wax ak julli ñu naan leen mm-hmm. ba ngeen ko déggee lu tee ngeen ne du dëgg allahu akbar ngir rek mm-hmm. sutura sàng sutura ni mu amee solo ci ci ci ci diggante ay jullit suñ tubaa daan wax naan ku gis ci yéen yéen ku ci gis ci am mbokkam ayib na yéene na yéene na fas ci xolam ayib jooju bañ a feeña ci moom mukk bu mu fesee ci moom mukk waxuma laak nag ku ko gis nga xam ne ne nga ko jàkk waxuma laak nag koo xam ne da koy janeer wala mu koy imaginer wala mu koy fabriquer loolu moom beneen affaire la daf daan wax ne ku yàlla teral bu ngeen ko gisee teral leen ko ndax inna akramakum at atqaakum euh, bu ngeen gisee koo xam ne day def lu ñaaw dafa woru suturaal leen ko ndax loolu boo ko defee da nga mucc ci sobeem da nga mucc ci ak tooñam daana wax ne nit ñetti xeet lañ kuñ teral ak kuñ suturaal ak ku nekk ci diggante bi mhm. kiñ teral teral ko ki yàlla suturaal suturaal ko ki nga xam ne yàlla suturaalu ko teralu ko bàyyee ko na ko yàlla bindee léegi nag ñaawteef ci liñ ci jàng liñ ci xam mooy dañ ko war a dénoncé waaye loolu dafa am ay charte bokk na ca charte mooy mu dem ba fees mu dem ba ne fàng mhm. ñaawteef kenn du ko jeex ngir di ko dénoncé wala di ko siiwal comme ni mu xew léegi dañuy bàyyi ba mu ne gi nag mën naa am ci anam yu bari nit ki dem ba yàlla weeral ko boppam wala moom mu weer boppam wala yu mel noonu bu boobaa moom mën nañoo mën nañoo ñaawlu ñaawteef yi te buñ koy ñaawlu it dafa am ay charte mooy li ngay ñaawlu ndax bokk na ci charte na la leer ne du jur lor ju ëpp euh, waaw yi mm-hmm. ak yeneen ak yeneen ak yeneen kon daal ay mbir la yoo xam ne teyit nag euh, ñi koy def it ngir fàggu ci alal wala wut ci dañ li li ñu war a njëkk a xam mooy ne loolu mayewut xañewut dëgg la mën naa yàq nit ki sax mm-hmm. beneen bi it mooy euh, wërsëg suñ borom moo ko yor mm-hmm. li koy maye mooy ak ragal yàlla mm-hmm. ragal yàlla dàqonte nag di weerante ak di di di yàqante der li ci tegee it mooy daanaka koo rëbb rek ba feeñal aw ñaaw si fam jàppal ne mi ngi ci sa ginnaaw wallaahi wala boog am na ay dagam yoo xam ne ñu ngi ci sa ginnaaw ëllëg saa yu ñu la jekkoo mën nañu ko def loolu lépp li muy indiwaat mooy li ma waxoon rek mhm. mooy fàggu def lu araam toujours mhm. dafay jaxase aw askan mhm. waaw moo xam yëg nañ ko moo xam directement la moo xam indirect la moo tax yooyu daal mën na di bàyyi xel amul njariñ amul solo te duñu du suñuy jukko yu ñu baaxoo tamit macha allah eh, eh, kon mi ngi noonu amul njariñ te it bariwul solo te duñ jikko yoo xam ne jikkoy réew mi la Sénégal baaxoon ñu wax ne réewum teraanga la waaye réewum suturaalante la mm. rawatina fu mel ne réew mi nga xamante ni daanaka ñëpp bokk lépp ñëpp bokk ndey ak baay kon ñi ngi jaajëfal bu baax a baax sëriñ ji la xam naa dama lay jox rek kàddu yi nga xam ne moom ngay tàggatoo laaj dañuy tëj jataay bi ok jërëjëf xanaa di sant rek sant mbokk yëpp mbokk yi ñu bokkal jotaay bi yëpp ñu ngi leen di sant bu baax a baax di leen ziar di ziar tey sant comme ni ma ko waxee woon léegi ñi jàkkaarloog ñun ak kilifa yi nga xam ne ñoom ñoo taxawee taxawaay yu am solo yi yëpp ñu leen di sant di leen gërëm di la sant yow suñu fàllu ci jotaay bi ni mu amee solo xëy na waxtaan yi mënoon naa gudd mënoon naa gën a <laughs> yi ni nga ko organisé nii baax na bu bàyyi mu kii rek mhm. comme ni nga koy waral di defee <laughs> macha allah yàlla ci suñu borom fay <laughs> amiin amiin jërëjëf asalaamaaleykum jërëjëf jërëjëf kooku mooy sama sëriñ sëriñ Jili Bousso yaakaar naa ne ñi koy topp ñi ngi koy xool ci yóbbalu koor yi muy ji liggéey liggéey bu am solo ñu jaajëfal bu baax a baax euh, mbokk yi nga xam ne ñoo seq euh, commission culturelle bi euh, tàmbale ko ci sëñ Seexuna jaar ci sëñ Mamour Amdi sëñ Moursala Sylla ak Baye Cheikh Awa E, suñ jëwriñ di Serigne Cheikh Abdoul Ahad Gaynde Fatma lépp ci ndigalul Serigne Mouhamadul Mahfous e, ñu àndandoo ak yéen rek ngir waajal e, guddi gu tedd gi nga xam ne moo ne ci suñ kanam di laylatul xadar war a am le 28 ci weeru avril bi dëppoo ak ñaar fukki fan ak juróom-benn ci weeru koor wi incha allahu rabbi kon xam naa rek lii mooy suñ premier numéro incha allah da ngeen ànd ak bokk yi ci deuxième numéro bi nga xamante ni incha allahu rabbi Baye Cheikh Awa Balla Ngala Syll moo nekkoon ci micro bi jàkkaarloo ci machine bi Serigne Assane Diop eh, ak eh, borom eh, alxadimiya TV ñoom nag moom sëñ bi yaakaar naa ne xam naa ne émission bi daa gàtt waaye waroon na maa desiwaat ci ñoom tuuti sëñ Bagare maa ngi maa Euh, ndax ndax taxawaay yi nga xamante ne bii ñi ngi koy am ci ci ci liggéeyu euh, dina ji euh, donte ñëpp a ngi ciy liggéey waaye tànn tur wu mel ne alxadimiya nga xamante ni bii ako tànn dana baax ca lay génn ca produit ba dëppoo ak tur wa ci loolu yaakaar naa ne loo am solo la kon ñu ngi leen di sant bu baax a baax di leen gërëm wasalaamaaleykum wa rahmatullah